kii euh, tey jataay bi mu assemblée général bu Benno Bokk Yaakaar bu Malicounda ànd ci ak CUGEM muy le cadre unitaire des jeunes euh, du département de Mbour muy daje boo xam ne bi dañ ko wootee pour ñaari mbir tout simplement benn bi ci jiitu mooy soutenir le président Macky Sall ci euh, décision politique yi nga xam ne jël na ko ñu am conviction ne da koo jël ngir njëriñu réew mi ngir stabilité réew mi ndax bu fekkee ne dañoo jëm ci ay élection àggaguñ ci

donc ñun mënuñu lu en tant que des leaders à la base accompagner ko appuyer ko euh, solidariser wu fortement ak moom loolu mooy le premier point bi nga xam ne bëggoon nañ ci wax defu ko ci bakkanam defu ko ci yaama neex mais da koo def parce que pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise maintenant loolu bu ko defee ba pare nag la ca topp mooy les acteurs politiques ñu woo leen pour que ñu xam ne réew mi moo féete kaw ñëpp moo féete kaw parti moo féete kaw nit ñi et que réew mi dañ ko war a waxtaanee ñom ñu xamné ne waxtaan bi leen président wo sayu ñu ne dañuy waxtaan ci processus électoral Sénégal bu ca génné day yokku mais du ko code consensuel yeeg démocratie bi ñu indi fi batay waxtané ko waxtané mbirum élection moo tax ñu agsi fi ci démocratie donc waxtaan bo mu leen wo japp na ne bu ca démé dañ cey gagné mais duñ ci am lu ñuy perdre donc dañ leen di wo de manière sereine pour que ñun ñëpp ñu wat suñu tension té xamné Sénégal mo ñu ñor mom lañ bokk té mo fété kaw lepp

amuñu droit yàqu ko dañ ko war a préserver